أسير مع الأبرار هنا أسير وسمى لدامي هناك أسير man maa ngi tudd lieutenant de police Ibrahima Diop nekk commandant de corps ba ci commissariat spécial de Touba ñu naan ko commissariat Janatou bon comme ni ñu ko doon defee at yi passé yëpp police nationale dafa dellusiwaat pour wax leen plan de circulation bi nan lay tëddee. plan de circulation boobu nag préfet moo ko euh, tënkoon mu ngi commencé ñetti fan ci weeru octobre jàpp juróom ñeent fan ci weeru octobre ci guddi bon bu ñu jëlee sens bi nga xamante ni moom la ñuy wax Diourbel Mbacké Touba mooy tali oto yi nga xamante ni dañuy jaar ci RN3 route nationale numéro 3 euh, am nañ ci ñaari possibilité bi ci njëkk moom mooy ñu traversé fi ñu wax Mbacké alors bu ñu rombee campement touristique ba weesu ko ak euh, téeméeri mètre su boobaa dañuy daal di jël seen doy jot euh, maintenant daal di traversé tali bi nga xamante ni moom moo jëm Kaffrine léegi nag dañuy daal di génn ci rang-rang bi tali bu xonq bi tali bu xonq boobu nag boo ko toppee euh, da ngay dem ba Daaru Salaam jubal génn Touba fa ngay génn nag daanaka moo post contrôle bi soriwul ku mu neex aussi mën nga continuer ba intersection MK excellence bu duñ ñaan euh, Elton fa Elton nekkoon boo ñaareelu possibilité bi mooy lenn Euh, boo ñëwee ba ci station Total bi da ngay daal di jàdd sa càmmoñ boo jàddee sa càmmoñ jëm ba ci rond point euh, héliport bi euh, jaar buntu gare routière gare routière da nga koy bàyyi sa càmmoñ am na nag benn rond bu mag booy jàkkaar lool mooy rond boo xamante ni moo séparé Touba ak Mbacké boo tourné sa càmmoñ rek su boobaa da ngay daal di jàkkaarloo ak soroor jumaa ji moom ngay continuer nag ba daj ci beneen rond bu mag bu ñuy wax rond point poste de mooy rond xayra rond point xayra boobu nag oto yi bu ñu fa yeggee ku amul laissez-passer da ngay daal di jël corniche bi wala nag bu fekkee ni ñëw nga ba héliport bu la neexee da ngay jàdd sa càmmoñ alors boo jàddee sa càmmoñ continuer daw lu xaw a tuuti su boobaa da ngay jàkkaarloog beneen rond point bu ñuy wax rond point Touba Ndiarème tubaa point Touba boobu tamit da ngay daal di euh, jàdd sa ndeyjoor jaar fi ñuy wax kuy sew pencu mbay wàdd wala tamit bu fekkee ni ñëw nga ba ci rond point euh, Touba Njaarim bi da ngay continuer tout droit dem rond bi ñuy wax rond point Touba boo fa yeggee nag dangay ngay daal di jàdd sa ndeyjoor alors boo jàddee sa ndeyjoor taar jël jël tali bi nga xamante ni moom lañ wax tali jannatu bi di jaar buntu commissariat euh, Touba alors boulevard Sëñ Cheikh Bombali bi nag boo fa yeggee. Euh, foofu moom dañ leen daal di dévier mooy ñi nga xamante ni yoruñu laissez-passer dañ leen daal di dévier waaw bu ñu leen dévier dañuy jàdd ñuy jàdd seen càmmoñ ñi ngi jëm euh, Daaru Xuddoos ñi jàdd seen ndeyjoor ñoom ñi ngi jëm euh, Daaru Minam wala Xayra alors borom laissez-passer yi nag ñoom may nañ leen ñu continuer mais ñoom du ñu weesu boulangerie Sam Jaxate donc oto yi nga xamante ni ñoo jógee Kébémer Daaru Moussi ñoom dañuy continuer rek ba ci euh, kii bi nga xamante ni si bassin bi nga xamante ni moom lañ ñu wax bassin sëñ Mourtala buñ ko rombee tuuti su boobaa lañ leen daal di dévier alors bu ñu leen nag ñi nga xamante ne ñoo jëm sa càmmoñ ñoo ñi ngi jëm euh, fu ñuy wax euh, Gédé walla Soura ñi jëm sa ndeyjoor foofu ñi ngi jëm fële toujours Daaru Xuddoos lañ nekk mais dinañ dem tamit biir Daaru Xuddoos plus exactement kër sëñ sëñ Sohaybu alors bu ñu jëlee sens bi nga xamante ni moom la ñuy wax Kaffrine Mbacke Touba foofu dañ ne oto yi maanaam benn fiir rek la ñuy la ñuy def bu ñu rombee poste collecte bi après bu ñuy rombee nag garage bi foofu la ñuy ni daal di euh, foofu la ñuy daal di tourner seen ndeyjoor jël boulevard Gaaraan Gaawaan ba ci intersection bi intersection boobu nag moom moo rongé euh, li nga wax moom mooy raay yi maintenant. bu jëlee beneen sens bi maanaam Linguère Daara Touba par la RN3 oto yi mën nañoo continuer ba ci rond point Touba rond point Daaru Jolof bi ku mu neex nag mën nga jaar ci euh, corniche bi maanaam sa càmmoñ wala sa ndeyjoor léegi nag boo continuer ba ci biir boo yeggee juste à hauteur de la gare de Daaru Jolof foofu nag lañ leen daal di dévier mais ñu yore laissez-passer may nañ leen ñu continuer ba ca kanam maintenant pour génnaat Touba. soit da nga génnaat nga jaare Mbàkke mais oto yi nga xamante ne yi génne Touba pour jaare Mbàkke mën nañoo jël li nga xamante ni mooy wax moom la ñuy wax RN3 su boobaa ñoom dañuy jaari euh, jaar fi nga xamante ni moom la ñuy wax euh, tabla caa bi jaar buntu kër euh, si xalif général des Baye Fall bu ñu yeggee fële ci station station Shell bi dañuy jaar di jàdd seen ndeyjoor. jël tali bi nga xamante ni moom moo jëm fële seen o léegi nag pour génne Touba may na leen ñetti bunt bunt bu ci njëkk moom mooy tali jannatu bi bi nga xamante ni moom mooy jaar bunt buntu ak jannatu boo yeggee ci rond point bi plutôt rond point Touba Fall da ngay daal di jàdd sa càmmoñ rek daal di jël deux voies ngaabo yi. beneen génnukaay bi nag moom mooy bi nga xamante ni moom mooy jóge post contrôle. dem euh, fële entre Mbàkke te naan ko rond point total boo ñëwee ba ci rond bi da ngay jàdd sa ndeyjoor boo jàddee sa ndeyjoor continuer bàyyi toujours encore gare routière bi sa ndeyjoor boo continuer ba ci euh, rond point bi ñuy wax rond point héliport maanaam da ngay daal di continuer waat rek bul jàdd continuer nga dem ci RN3 bi wala aussi beneen sorti bi bi ci mujj moom mooy euh, bi nekk jëli ci corniche bi jaar guy sew romb péncu mbay waat boobu aussi ku fa yegg si tamit da boo ko traversé ba noppi da daal di gis rond point boobu ma la wax rond point Touba foofu ngay yegg boo fa yeggee continuer jaar buntu euh, gendarmerie. alors circulation bi nag biir Touba nii lay tëddee donc euh, charrette yi moom dañ leen tere ñu daw ci euh, tali yi alors tali Guédé bi aussi danañ ko tijji dans les deux sens tali bi nga xamante ni si mooy tali Bakhya tali bu bees. ak euh, corniche euh, ak tali bi nga xamante ni moo jógee ci corniche bi jëm sëñ soin bu yooyu yëpp circulation dans les deux sens euh, tali beleel bi aussi tere nañ ku jógee ci corniche bi jëm station Daaru Xuddoos boobu tere nañ ko mais ku bëgg a génn tamit boo jógee tali Daaru Xuddoos boo la neexee boo wëree foofu ñu ko waxoon rek da ngay daal di continuer tout droit génn bon circulation yi nag tere nañ ko gros porteur ci biir Touba ñoom dañ leen wax ak fu ñu mën a jógee dañuy daal di jël euh, corniche bi bon moto jakarta yi nag euh, tere nañ leen biir euh, biir Touba ñoom daanaka mën nañoo yem rek mais Touba moom kenn woowu leen fa ñoom moto jakarta yi. waaw police nationale nag boo leen ko soxlaa ci biir màggal gi mën ngeen ne woote ci numéro bi ma leen jox. mooy 78 295 34 34 ma bantuwaat ko 78 295 34 34. police nationale nag mi ngi leen ñaanal ñu màggal ci jàmm mais nag mesure barrière ñu bañ koo fàttee respecté jërëjëf.